jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan fii si Galsen People ñu ngi leen ni di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi jëmm ji ñu dalal mooy jëmm ju doy waar koo xamante seen yok wàllu yokk awraam ci Sénégal kenn dootu ko présenté ñu koy wax Lamine Mbaye Lamine ñu ngi lay nuyu di la jaar. jërëjëf Cheikh ñu ngi nuyu mboolem ku nekk ci réew mi na ñi nekk bitim réew ñëpp kenn ku nekk ña ngi lay fekk fa nga nekk jox la sa wàccuwaay bi nga xam ni am nga ko ci suñu jëmm ñu indil leen nag tey jii pommade bi nga xam ni moom lañ daan leen indil di pommade bi nga xam ni mooy pommade yokk awra buy dellu yokk awra bu sew yokk awra boo xam ni dafa gàtt awra nag dafa baax ci góor awra mooy mottali kër awra mooy sagal kër awra mooy siggil kër awra bi nag nga yokk mu dijj yokk ko mu dëgër yokk ko boo ko nee bu xërñeen ñu xam ne nag awra génn na mooy pommade yokk awra bi pommade bi nag awra bi na gàtt lool lool ba doon cinq centimètres bëgg naa awra bi na gàtt lool lool ba doon trois centimètres bëgg naa awra bi li ma la mën a xamal mooy boo ko ci forotee une semaine nga ni ko bu xërñët bu gàttee dafay gudd bu sewee dafay dijj bu fekkee dafay dellu dafay fulleeku génn spécial boo ko téye ñu xam ne téye nga awra piir garante lay doon sans effet secondaire génn def sorti ni képp koo xam ne sa awra dafa gàtt kaay nga wuy si moom ma yokk ci garante ñi koy def bariwut génn def sorti koo xam ne sa awra dafa sew ñëwal ma yokk ko mu dijj nga ni ko bu xërñeet mu dijj këndëng ñu xam ni nag awra bindaan nga bokkut awra bintee pommade bii moo baax ci awra bu sew moo baax ci awra bu gàtt moo baaxit ci awra boo xam ne dafay dellu kon li ma la mën a xamal te man la ko xamal xale yépp yàqu nan li leen yàq mooy mballu mballu nag li ma la ci mën a xamal sama yaram a tàng jox naa leen intervention boo xam ni mballu leen ba tas bu ngeen mballoo ba seen awra dellu ngeen mballoo mballu ba seen awra gàtt ngeen mbaloo mballu ba seen awra sew ruuj ñëw leen ma dijjal awra bi ba mu dijj këndëng ci garanté ngeen ñëw ma dijjal ko ba mu dijj laa la wax ba xam ne boo ko nee bu xër ñet ñu xam awra génn mu sew nga ñëw ma dijjal ko këndëng ba fam daan xaj dootu fa xaj muy dellu nga ñëw ma génne ko spécial sidit yëpp tàlli tàndar ba foo ko jam muy jaddi-jaddi gaa ñi xam ne nag awra génn la ku ko bëgg kii ngay jël mooy pommade bi amut effet secondaire foo nekk mën nga cee jot nee naa la mballu baaxut boo tàmmee mballu buñ la tegalan jigéen da ngay bàyyi jigéen dem mballu da gis koo xam ne dafay dugg ci duus bi di sangu ñu naan yàgg na nekk day mballu nga gis koo xam ne day sangoo mbaa jëm ñu naan dëkk bi daa sedd ndekete day mballoo léegi nag bu ngeen mballoo dafa leen di jural néew kartan benn jural leen awra buy dellu ñaar diwal leen ngeen toog seen màndiw di toq ba noppi nag sidit gi bu fekkee daa jëme côté dafay jur nit ki di gaaw a daanu awra bi dellu sew ruuj awra bi gàtt duguj léegi nag boo bëggee mu dijji këndëng këndëng dijji am na këndëng nag laa la wax boo bëggee mu dijji këndëng nga ngëb ngëbaat muy jadd jaddi boobu ba nekk ca kaw di signaler kii ngay jël dafay di jël awra bu gàtt di jël awra bu sew di jël awra boo xamante ni si dafay dellu lu ci mën a am rek boo woote ci numéro bi da ngay daal di am yokk awra piir léegi nag dafay am black noir mooy bi nga xam ni ñetti fan lay diire awra bi dijj ñetti fan mu gudd ñetti fan mu dijj këndëng black noir ñetti fan mu dijj këndëng gudd nga ni ko bu xër ñeet gaa ñi xam ni bi awra génn na nee naa la awra ku ko xamut mënoo koo yokk jaaykati karité yi bari na tappalekat yi bari na waaye kaay ma garante la ñi ko ñi ma bëriwut léegi nag awra bi na sew ruuj bëgg naa na gàtt duguj bëgg naa nga ni ko bu xërñeet mu dijji këndëng guddu ñuul kukk liis ba boo toogee sukk sa bëti woom boo ko yónnee mu dem li ko man mooy black noir foo nekk mën nga cee jot réew mi nag da ngay gis koo xam ne dafay joxe dépasse joxe dépasse baax na lool yaa ngi may dégg nga wàcc sa soxna jox la nga añ baax na lool mu jox la nga reer baax na lool waaye nag mu delloo bunt bi nga daw jàng loolu dafa ëpp tool léegi nag li ciy mësal nit ki tey sirul umoor li sifaaul amraat mbokk mi yow mi nga xam ni dangay sëy ak sa soxna di gaaw a daanu mbokk mi yow mi nga xam ni sa mandiw dafa oyof mbokk mi yow mi nga xamante ni si maanaam bu soxna si jaagar jaagare seetlum dencul nga tooy xipp daanu kii ngay jël dafay raxas sa deret ba mu set wicc yokk sa fooraayu mandiw bu fekke da ngay gaaw daanu mu raxas ko bam set ko japp man nga sey 25 minutes japp 30 bu fekke nak manam lol lepp dafa nek ci yow ak yow ba sa nak bi fi la lepp dajalo nga gaaw daanu nga new kartan sa mandiw di oyof tay sir ngay jël li si faawul ki nga xamni soxnam ñew na sumeku mu wacc mbaa du am 3 minutes mba du am 2 minutes lolou bakkar la da ngay gis koo xam ne sax soxnaam jëkkër ja da ko fay bàyyi muy nelaw mu dem di taxawaalu bu ñëwee du man ci moom dara nga gis koo xam ni daa tëral jëkkëram ba muy nelaw mu génn wuti dara ci àll ba fekk na la war a baax ci moom jëkkër ji du ko jox kon boobaa da ngay am bàkkaar am sa soxna bàkkaar léegi nag dem leen jël tey sirul umor li si faaul amraat kuy gaaw a daanu mbaa sa mandiw oyof mbaa nga néew kartan mbaa boo dee say gànje ga lay na nga daal di daanu ab jël tooy xib soxna si dem di fóoti darabam te amut la mu bëgg kii nag ngay jël boo ko xisee jël traitement bi téeméeri at boo ko doon am dootoo néew kartan di nga mën a sëy di sëy di sëy di sëy te du am benn effet secondaire ndax yenn saa yi ngeen gis koo xam ne dafay jël garab boo xam ni mën nay sëy euh, mais dafay am bopp buy metti mbaa muy sëy xaw ma suus la xaw ma nangam ki nangam mu lay jural ay ñàkk kartan ëllëg yàq na réew mi léegi nag Taysir da nga koy jël mu lay may appétit ngay lekk nga di ko jël mu lay may appétit ngay sëy nga di ko jël mu lay may appétit boo sëyee ba noppi boo daanut danaan teng rek teng mooy siddi di fireeku nga mën di sëy di am appétit ci jigéen di am appétit ci bool bi di dem nag toilette yooyu bu ko góor dee def dafay baax ci moom ci sëy kon kii ku ko jël di nga mën a sëy di sëy sans effet secondaire ndox siti wala hémorroïde li mu ci mën a doon it am na am na ñoo xamante ni si xanaa xamoon ni jox ma ndoxu siti bi euh, li ko waral mooy dañuy am ñoo xam ni maanaam euh, dañuy gaaw a daanu dara warulu leen ko dara warulu leen ko ci seen këru sëyukaay lu dul amee ndoxu siti waaw ndoxu siti nag dafa doon loo xam ni jàngoro la joo xam ni mat naa faj ndax ndoxu siti boo ko amee sa biir dafay faral di jooy ndoxu siti boo ko amee sa karaas bopp bi nii dafay faral di karaas da am ñoo xam ni seen bët yi fu mu toll dafay jooy di bas am ñoo xam ni seen euh, euh, baaraam bi ci boppam dafay tooy xipp am ñoo xam ne maam bu ñu demee toilette seen ginnaaw gi dafay mitti léegi kon ndoxu siti baaxul ci góor rawatina jigéen dafay tàngal màndiwam bu dee góor mooy ndeyi feebar yi góor gi da gis koo xam ne buy daanu ci soxnaam banniw bi day tàng jër ba lu mu fekk ci biir man koo lakk léegi nag kii boo ko jëlee boo ko jëlee ndoxu siti bi daf lañ koy garanteel di nga mën a sëy di sëy sa deret set dara sant effet secondaire léegi nag li ma ëppal yitte te ëppal ma yitte mooy kër gi nar a tas caaxaan yi dafa bari tappalakat yi bari yaa may dégg jaaykat yi karité yi nekk ci àll bi di taxawaalu rek di yàq nit ñi ah. ku mën a yokk awra yokkal awra ku mënta yokk awra bàyyil ñi ñi mën a yokk awra dem yokk awra mhm. clients yi woy leen ci seen bopp deng am fulla am personnalité ku leen jaay yokk awra bu ngeen ko gisee sant leen ko gërëm ko ku leen jaay yokk awra bu ngeen ko gisut dem leen mu delloo leen seen xaalis nit ki liggéey xaalisam ba xam ne liggéey na ko nga ñëw di ko nax di ko jaay karité naan maay yokk te yokkoo dara loolu ay fen la ay tappale la léegi nag kii mooy yokk awra pommade bi sa awra dafay dellu kaay nga jël si ko sa awra dafa gàtt kaay nga jël si ko sa awra dafa sew ruuj mel ni bantu bale une semaine mu dijji këndëng gudd dëgër këcc ba boo ko nee bu xërñët ñu xam ne awra bi génn awra nag nga yor ko matut awra ngay sekk ak sa soxna moy sinab lolou lolou lolou ñak fulla la awra bu fekke mat na awra 30 cm 30 cm diglu 30 di diggaay bi bo ngebe ni manam loxo bi warut fess loxo bi da wara def ni nga ngep su ko ko yoni bo su sukkee sey beuti om dina xamni yow mi yoni ngako waye yoni yónni ba noppi nag topp caa sow làmmañ loolu noppalewut kon awra bi bu gatte lii koy yokk arab bu sewee lii koy yokk arab bu fekkee dafay dellu lii moo koy dindi sidit yi tàlli nga mën a sëy spécial sans effet secondaire awra pire nag daa am ñàkk awra am awra pire mooy awra bu baax dijj awra pire mooy awra bu dëgër këcc awra pire mooy awra boo xam ni boo ko ñëwee bu xëriñet nag ñu xam ne awra bi génn na nga ngëpp muy 5 cm ndëgg mbaat muy 10 ndëgg mbaat muy 15 bop ba nek ci kaw di signaler don lum gatt gatt 10 cm lolou moy awra gor bu mat awra kon kat yi ak kat yi nan genn dakar lima metti mako xam ndax man téeméeri appel man nan ma wo ku ne nan jaar ci diw jaar ci diw jaar ci diw ta ndekete feni kese ñi munta yok awra nan dem bayi gerte tiaf genn ci àll ba ñi toog nag mën a yokk awra ñu bàyyi leen ñu yokk awra awra bi daa war a dijj këndëng awra bi daa war a gudd awra bi daa war a dëgër këcc ba boo déggee ñu naan la bii dëgër na këng-këng loolu mooy awra kon ku ko bëgg boo wootee foo mën a nekk di nga ci jot loolu li ko waral mooy dama ko jox ni ko na ko diwoo ñetti fan jàpp une mu dem diwoo ko 15 jours mu diwoo ko 15 jours mu dem jikka ba ci yàgg ànd ak soxna si soxna si daal di ko xool ngëb ko daal di ree ni ko li ma daan ngëb na bokk ak li ma ngëb tey nee na moo ànd ak soxna si nee na jikka ba ci yàgg rek soxna si ni ko génne ko xaju fi ma ne ko yaa ko teg sa bopp man yokk laa man waaye mënumaa wàññi kon kii ku ko jël awra bu gàtt awra bu sew awra buy dellu foo mën na nekk dinañ la ko garantel topp la ba say traitement jeex nga jël ko awra bi dijj awra bi dëgër awra bi gudd ba boo ko nee bu xër gaa ñëpp xam ne nag bu xër ñett jot na kon cabinet Cheikh Issa mi ngi piyaay yi fu waay mën na nekk ci réew mi ak bitim réew man nga fa jot yor nañ ay ndaw yoo xam ni tubaarkàlla macha allah dinañ la teeru dinañ la teral te lépp nag li ma ci gën a neex sutura lay doon kon dem leen gën faju ji jàngoro das koy weer ca ka ko mën a faj waaye jàngoro nag kenn du ko weer cekk ka ca mënut dara kon ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak yàlla nañu yàlla defal tawfiq ak taysir riddan wa rahmatan wa barakatan min allahi badiyam